ci sant bi ñu leen sant bu baax di leen gërëm di leen doon si nuyu Serigne Cheikh Sidi Mokhtar ñu fi toog jotaayu Cheikh Mouhamed yàlla na ko yàgg loolu te am. amiin amiin yaa rabbal aalamiin. ñu leen ko xamee rek loolu moo ko gàtt ndax ñu ngi ci liggéey ba agsi fii ñu xam ne taalibe bi sëñ Tuubaa fi mu nekk juróom-ñaari yi itam sëñ bi gën a tëdd moo waral ñu ñëw fi te loolu itam bant li ko waral mooy li ci diggante ak ñàkk moom suñu bopp mooy bu ñu ko waral nañ ci daan ñu jëm ak bët jëm moom la ñu mën a tëdd ndax bopp bopp yi bu ko gën a màgg ndax ñoom ci taalibe bi suñu jëm kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu tamit sëriñ Tambédou bi nga xam ne moom lañ jiital ci fédération réew mi di nuyu tamit sëriñ Baara Ndoye bi nga xam ne moom itam moo jiite daayira bi ci dëkk bi ñoom ñaar ñëpp suñ posture rek lañ xam ci moom ndax ñoom ñoo jiite la waaye bu tàmbali wax bu wér posture bi képp mën cee loolu la ñu fekkaat sant bu baax di gërëm itam Serigne Dieng Seck ak mboolem taalibe yi fi nekk bàyyi ci biir njëkk rek ñun ñëpp ñu gën a waaye loolu dafa yàgg daa doon taxawaay bu rafet kon bu demee ba yëkkati fi mu waxtu la war nañ ko fàttali bu baax waaye ñu leen sant yéen ñu jiite taalibe yi ci seen ak seen taxawaay. xam na ne ci liggéey Serigne Touba rek la ñu am na njëriñ yitte bu yeesu noonu Serigne Touba nag képp koo xam ne bàyyi nga sama ko ci loolu mu wóotu la Serigne ma fajal la sa yàlla kon nag loolu sant yàlla bu baax a baax ñu ngi leen di gërëm itam bu baax a baax ñu leen jotee ngërëmu Serigne bi ndax xam na seen taxawaay ndax waxtu wu nekk ñeen ñi ci liggéey Serigne Touba ba tax moom sax wax na li jëwriñ joxe lu ne fàttali rek leen waaye du so du sonne ndax lépp lu ñu liggéey sëñ Tuubaa kat jëfi taalibe yi jiitu nañ ko fu borom kon loolu waxtu woo a koy fàttali kon ñu ngi leen a ndax xam nañu bu déglu te ci la nekk ñu ngi leen ñaan ci barke sëñ Tuubaa bi nga xam ne moo leen tax a jëf yàlla na leen ko jàppale bu baax mais yéen ñi ngeen ci am waxtu woo ngeen di ko gën a baax a baax sëñ Tuubaa di leen sant itam ci ndigalu sëriñ bi ci mboolem loolu sëriñ Tuubaa dafay ñëw waxtu bu nekk nga xam ne bu ñu noppalu guddeeg lu tëg yéen a ngi dawal gan di lépp li muy war a mën a posté ndax jamono ji xam na crise bi métti na waaye lépp xool leen ko yéen a ngi def ñoom ak ñoom ñu ngi ñu ngi jëm suñu tubaab waaye nag suñu tubaab liy tax ñoom ñëpp na ngeen xam ne gis te képp koo xam ne fay rek lépp bu baax a baax ci jafe-jafe ndax sëriñ moom lépp lu ko lépp lu ko nit defal da koy jaaroon sëriñ Mbacke Bousso wax ni da ko xam ne ne Sénégal gii bu dee ci liñ a xam rek ku ko fi ëpp xam-xam amul ko wax ne ñi ma umpale de ñaar bokku ci. liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci saw ñaq dana joxe barke jox ko sa alal dana doon wërsëg kon li tam la ngeen daloo xel te xam li di jëf li ngeen di waxee bari li ko jëf ngay jëm Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa ko gis. te Sëriñ Saliou Mbacke waxoon na ne Sëriñ Tuubaa nee na bokk na ci njëriñu àddina bokk na ci rek loxo dana fekk fu dara nekk bu def dara dana fekk fu dara nekk mu bari ko wala dana fekk fu mu bari nekk mu barkeel ko kon nag. loolu lépp itam jëm ci Serigne Touba Serigne Touba dafa nekk njariñ 1922 mu woote bi mooy njariñ di naan jumaay Touba fekk njariñ 14 18 bi ñëpp xam ne ñu ngi ci crise bu métti adduna si amatul dara dem na France bi nga xam ne moo yëngu Sénégal sax seen xaalis bi bëgg naa ko ñu ñoo sàkku si ñu bëgg Serigne Touba. Sëriñ Tuubaa jox leen cinq cent mille francs ci yooyu dem boo ko doon nattalee ñu ay milliards dimbalee ko seen xaalis boobu ko kon naka jëkk Sëriñ Tuubaa lépp lu ko doon waxoon suñu doon dafa def barke te yooyu jamono itam ndax sëriñ bi ay alal yi ñu ko daa jox mosu koo jëriñoo tuuti la ko suñu borom mooy bu ko jëfandikoo ba caag muy wàññi jëm ba di ko wàññi ba caag bu wax ne sax. suñu borom mayeetu ma man nangu ci sama xol sama loxo loolu alxuraan ñun jigéen ñi di ko génn ci biir kër yi ñu di ko def ci ay boîte ba mu di boîte di fees ba mu di ay bëri waaye sëriñ bi mus ci am soxla mus ko léegi téere yi jël di ko def ci biir lan yi di ko def ci di ko teg ci kaw lan yi lu bi ko bàyyi ci biti kon loolu sëriñ Tuubaa foofu la nekk tubaab yi jaax na ci bi mu laajee ñaar fukk ak juróom-ñett yi képp koo xam ne joxe ko ko mooy sa sa njot ëllëg ci sawara daanaka kooku man ku ne na ko def defaale ko sa njot nit ñi di def xërëb xërëb li ko joxe ba yëf yi moo teel a man lool moom la ñu war a defal tubaab tubaab yi tubaab yi jaaxle ci loolu yéen sëñ bi ndax ñu ne dañoo ñu ne dañoo gis ne lii ñu santaane muy galak bi impôt di juróomi dërëm ma juróom-ñett juróomi dërëm ci yooyu joxoon dañ koy laaj nit ñi di leen ci sonal lool di leen ci teg say élément te duñ ko nangoo joxe te dañ leen ci forcé yow nag nga laaj leen ñaar fukki juróom-ñett te forcé wu leen ci ñu di ko njëkkee ñu ko loolu nag dañoo jaaxle Serigne Touba nga leen maa ngi yëg dañoo bokkul ndax man de lii ngeen di wax lii ngeen di yëw ci ñaar ko yëw na te liñ fi liñ fi indi te laa jëmale ko ma ko xamul ñeneen ñaar fukki juróom-ñett yi ngeen di wax itam man li ma leen di laaj dama leen koy laaj ngir yàlla ñu di ma ko jox ngir yàlla man leen ko defal ci yàlla. yéen nag li ngeen leen di laaj laaju leen leen ko ngir yàlla ñoom duñ leen ko jox ngir yàlla te defuñ leen ko ci kon na góor góor bu baax a baax te xam ne alal kat li muy neex neex te Sëriñ Tuubaa kat ñoo ko toppoon ku ma jox ko ko defoo ko àdduna am ya a topp ku mu ci mas ku mu ci masaan liggéey lu mu gërëm la am na ci ñoo xam jëf lañ mu gërëm leen ba fii mu ne ba ci seeni sët ku ca ku ca mucc la sa mbir gërëm la ko loolu mooy liggéey si ndax suñu borom dafa wax ci alxuraan yi ishtara minal muminina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul janna kon ñun nañ xam ne dañoo jaay suñu jëmm ak suñu alal ñee ko Serigne Bara waxee Cheikh Abdou Lahad waxoon ko yéen rek Serigne Touba lay ñu bakkan yi alal yi lay laaj ak cofeel loolu la kon nañ jël suñu jëpp jox ko jox ko suñu jëmm jox ko suñu alal te jaay seen dara bu ñu ko defee danañ ñu ko defal ci àdduna defal ñu ko ci dama waxoon ne sëñ Massamba Diouf Samb ne ko ah. Massamba mu ne ko Mbakke mu ne ko mbaa xam nga ne ak Dame Samb Dame Samb mooy dencukaay mu ne kon de Mbakke ñu fas yéene doole lantinoon lantinoon mooy denc mooy dencukaay yi diw mu ne képp koo xam ne def ko ko dem bu ñu àggee fa nga xam ne suñ mënu faa am diw danaa ko yëkkati jox la nga moo tax sëñ Abdou Lahad Mbakke daa wax ne joxe addi addiyee de mooy am dencal ma rek la maa ngi ma ci gërëm kenn. incha allah dana wax Serigne Touba waxoon na ne bépp boo xam ne sukk na jébbalu ci man daajal naa la gaal def ca kàllaara jël caabi yi denc bu bënn la ko jox la. nee na boo ëllëgee nag boo daajee gaal nga loo ci fekk bu ma sikki da nga xoolaat sax. alhamdulilah kon nañ xoolaat suñu jublu Serigne Touba. te moom kat ba muy liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam da ko joxoon léppam jox ko guddeem jox ko bëccëgam jox ko alalam jox ko njabootam amul lenn ci boppam moo tax suñu borom fayee ko bindee fi ñu topp ko te suñu boobu kon nag ñii yàlla suñu ma defal tawfiq ba ñu topp ci ginnaaw ndax loolu mi baax rek taalibe bu ne Serigne Touba la tànnal boppam tànn la boole ci taalibe Serigne Touba te waxal la ko boobu bindu ko fa wóor tànn la ba noppi boole ci ñuy texe ëllëg ndax nee na. يجدني عند مليك مقتدر كل ولي للجلال يتبع ولي ونرتاح صدام فات سنبو كيف كو خنا سنبو ام نار نغا تخي ليك تام دا ديف سي خورم با صوب كون نا كو يالا ديف توفي وخ ما نكو صوب كو واي بوك سي ديما تو وركا صوب تاني تاني تاني تاني مو كو خنا واحد بو صوب واحد فان لاي غاني غور غور واخ با غور غور كي موي سامونتي ديغلو سي بروم باي اتري ndigalu yàlla yi génn ndénkaay la Sëriñ Tuubaa yi génn ndigal suñu borom na ci góorgóorlu ba képp ku ñu gis la Sëriñ Tuubaa waxoon ne boo liggéey képp koo xam ne bokk nga ci ñoom si